frère maa ngi lay nuyu. waaw waaw sister maa ngi lay maa di kontaan si yow bu baax aussi. maa ngi combat boo xamante ni gars yi ñu ngi koy wax waxtaan nañ ceeg mbër mi mais comme que yaay manager am yaay papaam yaay léppam muy ci diggante Gris Bordeaux ak Bombardier. waaw loolu moom dëgg

combat boo xamante ne ñu ngi leen ko doon wax muy Balla Gaye ak Bombardier ñu ne ci la Gaye lay yàqu est-ce que mën nañu am confirmation bi. waaw xam nga combat man du yàqoo ci ñun pour bañ a sori rek mooy combat du yàqoo si ñun am na ku ko soxla woon mais li ko yàq jógewul si ñun donc ñun nag tooguñ fi du xaar ken kuñ ñu moo mu xam ne mën nañ bëri ak moom incha allah dañ koy jël bëri ak moom. kon mën nañoo jàpp ni Bombardier dina am combat balaa saison bee tëj. incha allah dina am combat combat moom incha fin saison bi dinañ ko am incha